ñu bari woon nañu lool génn fësal seenug mer askan wi yeewoo ci feggu otorut à péage Mbour Fatick Kaolack gannaaw bi ñu nemmeekoo ni bile péage amul benn issue bu jëmale ci seeni dëkk. enclavement boobu nag pour pour mu deñ il faut ñu defal ñu fi rond rompoint bi moo ñuy dimbale pour zone bi mun a mun mun a am ouverture ci fàttali collectif bii di xamle ni gannaaw seen sitting bu njëkk autorité locale yi waxoon nañu ni daan ci indi ay saafara waaye ba tey furaas sous-préfet ñëwoon na représentant Ageroute bi nga xamante ne moo jiite travaux yi ñëwoon na li ñu proposé mooy bretelle boo xamante ne day jóge ci rond point bi ne Caajaay ñëw fii Kër François ci Medina dox te loolu nag six la mais loolu pour ñun dañuy nax rek dañoo wax noonu rek pour ñu pour ñu kii pour ñu calmer wu. ci bile péage liggéey ba mu ngay wéy tey jii collectif bi seenu sàkkuteef mooy autorité gouvernementale yi andi leen ci ay saafara si nu mu gën a gaawee.